naa a awaay lingeer naa lingeer doxul guddee batabul la lingeer gëne lingeer doxul batal waxoo la lingeer gëne yaay munaas ci béri mbub ne yaay sey na boo ak xari yàlla ku yàlla may borom kër amin waay ci barke ajaara tungu yi ndaw bërëm ndaw ni kub saa nee na ram mi ci def ngeen naa Sénégal kontaan naa kontaan de kontaan naa. am toogal ñu. Farsamba kontaan de kontaan naa kontaan naa. Xëy Ndiaye oh, borom salon. dalay eh, di borom salon. moo bëgg maam rakke moo ko wan sab sab mbaa de man de kontaan naa. waaw te eh, man de kontaan naa. te laa bind daara man de kontaan kontaan naa ko daan fii ci réewum Sénégal. waaw waaw. jafoti ma docteur yàlla tan guppi ma. am naa ku beelal jeeri du ñaa ku beerit neeri. waaw waaw mbaa way